bu ne coow li jur la am na ñu bari ñoo xam ne nii am na lu ñu ëmpale ci lu ñeewal accusation yi nga xam ne daal dina tegu ci ndoddu njiitalu Pastef bi Ousmane Sonko moo di daal li dara seetlu ba seetlu mooy suñu nattaango yu l'observateur am na ab jàngat boo xam ne indi nañ ko ci ki nga xam ne moo di Adji Sarr mi duut ab baraamu tuuma Ousmane Sonko ne da ko daan violé moom moom la di ab xale bu jigéen am lu toll ci ñaar fukki at Adji Sarr di fekk baax ci benn dëkk ba nga xam ne mu ngi nekkee ci diwaanu Fatick te la ñàkk lool way juróom bu jigéen teg ci way juróom bu góor moom moom léegi ginnaaw daanaka mën nañ jàpp ne fu mu toll nii dina bokk ci ñi gën a siiw wala ñi nga xam ne ñuy gën a maanaam seen tur di gën a fës ci li nga xam ne moo di Sénégal rawatina ci yenn doxalin yi li ko waral bu waral moo di ne ci ab gëstu bi nga xam ne dañ nañ ko amal moom moom la day ginnaaw ay yoon yoon ci liggéey yi nga xam ne jot na ko nekk yu métti métti daal di sax nag boole ci am njàng moo xam ne mu tumaranke la ginnaaw bu mu amee lu toll daanaka ci atum 2010 ci la ñàkk li nga xam ne mooy ji waajuram bu jigéen moom moom moomu lay dala daldi rek ñàkk juróom bu jigéen daldi ci teg nga xamante ni mooy di juróom bu góor ci noonu moo ni fa nga xamante ni fa la nekkoon di fa amal ab liggéey moo di ca maanaam salon de massage boobu li di Sweet moom mu lay am na ci leneen loo xamante ni ràññee nañ ko ci moo di dafa teel a ñàkk juróom jógee ci dëkk ba dëkk bi ñuy wooye bu nekkee ci diwaanu Fatick ndax di ñëw fi nga xamante ni moo di rek ci diwaanu Ndakaaru ci fële moo di rek Grand Yoff ginnaaw bu ci 2014 moom moom la ci la dal di nekk ci ab tantam di fi li nga xam ne moo di njàngam waa ji mel mu jéewul sori ndaxte ci classe quatrième di si dal di li nga xamante ni moo di njàng moomu lay wan ko ginnaaw ci loolu nag daal di nekk ci activité maanaam quotidienne mu di ay liggéey yu muy amal njaay ak yeneen ak yeneen ba ci sax nag ab maanaam place su jaaykat boo xam ne ni ab couturier la nekk ci Liberté 6 fa la daloon di nekk waaye ginnaaw loolu ci la daal di jógee ci bërëb boobule ngir daal di dem ci maanaam suite boutique boobule di fa amal liggéey ñu koy fay weer bu dee lu toll ci quarante mille francs CFA. Adji Sarr tey jii bokk ci Sénégal yi nga xam ne seen tur gën naa fës ci lu ñëwal li nga xam ne moo di wàllum l'enquête ginnaaw bi ñu ko dalee di mettre en garde à vue fa waxtaan boo xam ne di dina jip moo di ne ci kàddu yi mu fësal mooy Ousmane Sonko da ko doon dal di violé ay yooni yoon ma bu njëkk ba dalan dina jàpp ne mbir mi du de fës ndax tur ak doye bi nga xam ne dal na ko am ci réewum Sénégal tax mu daloon di noppi ngir rek bañuy yàbbi ci mbir moomu la ginnaaw loolu moom bi mu amee lu toll ci ñaar fukki at yooyu la daal di mu xamee ne dina daan fa ñëw ak ay fetal ngir rek menacé ko ne bi moo daal ci bi mu demee ba tey ci wàll wi ni mel ci la dal di fësal ngir xam ne faaw mu dal di ko boole ak askanu Sénégal moo di plainte bi mu dal di yëkkati ginnaaw plainte boobu la ñu baree bari dal di wéy di na ci tantam yi nga xam ne moo joxe xibaar yi ni mel jàpp ne ak complot la bu mu dal di fësal tukkee ci li nga xam ne moo di doxalinam daal dina dem ba boole ci ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkal ne ginnaaw ay fan mu ngi doon am ay repas yoo xam ne mu ngi jógee ci résidence bi di Mamour Niass te loolu amul mooy yi nga xamante ni mën na koo may ngir mu koy dal di dundee. ba ci loolu itam moo ni di magu ki nga xam ne moom moom salon beauté boobu rek daal dina fësal ni ab complot mu ngi doon dox ci ndodd ki nga xam ni moo di sërëm ngir ñu koy fay ay 40 millions am ñu dem ba fësal ni 15 millions daal nañ koo fay ki nga xamante ni moo di aji ngir rek mu daal di taxal wala tilimal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko si loolu daal mu ci mëntu doon ginnaaw ab garde à vue boo xam ne am na ci ndoddum waaye teewul tamit loo xam ne ñu ko ko daal di toppee askanu Sénégal ñëpp di xaarandi lan moo mën a siiw wala sax nag indi ab dara tukkee ci wàllu wi ni mel. ba léegi li nga xam ne daal dañ ko ci xaar mu di yoon daal di yàb bi ginnaaw bu gardaaw bi bu dox ci ñaar ñooñu li war tukkee ci ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci doxalin boobu li di wàllum accusation yu tukkee ci ndoddam moo moom kese moom la ñu daal di teg loxo ndaxte ki nga ne tam moom Sweet Beauté moom dal nañ ko teg ak xibaar yi nga xam ne yëpp doon naan tukki ci li nga xam ne moo di ndoddam rawatina doomam bi ñu jàpp ne dafa nekk ci ay jafeñ-jafeñ te soxla taxawaluñu ki nga xam ne moo di waajuram